abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot fay bu baax. tur bi naka la. Bàcci Mbaye. mën nga ñëwalaat tuuti ci métier ci métier waaw mën nañ la ci ñëwal de. Ah. waaw métier plomberie maanaam métier la boo xam ni yombul daal waaw parce que ndox dafa sensible. xam nga liggéey ndox yombul waaw des fois moo tax boo koy liggéey une fois li waral dangay liggéey fenn nga dem ñu wala wala dara fekk matériel bi nga jënd moo baaxul quoi waaw matériel dafa am chinois ak original moo tax dangay ngay à chaque fois rek képp koy liggéeyal da koy proposer mu jënd original bi quoi parce que chinois bi boo liggéeyee bu baaxul dañ naa ah premier bi kat xamul dara. yéen seen liggéey lan la exactement ci lan lan ngeen di liggéey ci yan problème lañ di woo ngeen ci intervenir comme comme li ñu fekk ngay def nii. waaw lii lii corvée rek waaw tuyau bi dafa toj quoi pour ñu ñoom pour raccorder ko waaw pour def ci àmb ak benn kuddu galva monté waat bi après nga cimenté ko waaw. dañuy dem ci chantier yi dañuy dem chantier waaw di installer bâtiment yi affaire yooyu waaw ak di monter si presseur quoi ay réservoir yëpp dañ koy def waaw. métier lu ngeen jàng la moom wax dëgg fa yàlla luñ jàng la waaw jàng ko mu metti torop nag waa ñu ciy dégg lu ne mais teewul ñu gëm liñ gëm rek waaw nekk ci daal. waaw ah, yàlla diñ ci suturaal. tey tey ana yan man moom sama bopp man personnellement quoi man dama xaw a gëm yàlla quoi moo tax jafe-jafe mënuma jaaxal. Ah. waaw parce que dama ko dund dund ci yu bëree bëri waaw jafe-jafe daal lu ñëw rek dama koy delloo ci loxo suñu borom waaw di sant yàlla bu baax. waaw. ndax métier bi am na xaalis métier plomberie. ah xaalis moom sant yàlla rek waaw ah, dañuy sant moom parce que soxla boo am faj ko rek loolu moom doy na sant yàlla quoi kenn bañ la xamal dara aussi hmm. waaw loolu doy na sant quoi. comme ah, <laughs> ah, mais xam nga ku nekk li ngay liggéeyee moom. doo ko wax ku nekk sa salaire doo ko wax yow ma la laayoon sa salaire bii ngay liggéey doo wax ni ma temps la quoi waaw. mais daal yàlla bu baax en même man lii rek laa xam ko bu ma wàccee dem entraînement ñaari laa ma wàccee may entraînement loolu daal laa depuis kañ ngi ci waaw. loo waa sant yàlla de maa ngi ciy sant bu baax franchement waaw maa ngi sant bu baax a baax. waaw euh, loo bëgg a ak ak bile métier daal ba fan nga ci bëgg dem daal maanaam tey ba fan nga bëgg yegg ak métier loo bi nga xam ne yaa bëgg naa ci ay teraanga am ci kër. am ci teraanga daal képp ku ma war a dimbali rek di ñaan yàlla suñ borom suturaal moom a dimbali la ci loolu daal bëgg naa ko waaw. xëyu ndaw yi noo ko gisee euh, ci Sénégal yow moom yàlla def na peut-être yaa ngi ak sa yëfu mhm. am na yoo xam ne tey peut-être euh, dañuy xaar euh, ci diggante la gisee maanaam yéen ñi nga xam ne peut-être yéen a góorgóorlu def seen yëfu ak it ñoo xam ne peut-être dañuy liggéey nguur gi leen ci. kii man moom franchement dama gëmul loolu quoi man gëw ma xaar nit waaw dama gëm ni li may am suñu borom moom ma koy jox mais doomu aadama aussi may ñafe pour am mais ma ni yàlla nag mooy dogal nit ki bu la waree defar moom ala kulli aal defar loolu kenn mënu ci dara mais man gëwuma xaar nit quoi franchement waaw man daal dama gëm bu mooy xëy wuti rek. damay xëy lu ma yàlla war wërsëgalee rek ma xam ni lii la quoi yooyu laa gëm soxlawu ma dara mu jàmbur aussi waaw lu ma yàlla séddit dama ci doylu franchement waaw man moom ndaw yi daal li ma leen wax ku nekk boo gëmee sa bopp rek suñu borom jàppale la quoi nit doomu aadama da ngay gëm sa bopp aussi boo gëmul sa bopp keneen koo gëm après loolu daf lay sonal rek da gëm sa bopp gëm yàlla aussi wóolu man noonu laay fonctionner quoi. mais pas di xaar man loolu habitude loolu dafa nekk ci man ba loolu duma ci mere doom aadama quoi diw daf ma war a defal defalu ma nii non gëw ma loolu waaw dama xam man teraanga bi ma bëgg quoi man li ma bëgg man maa ko mën a faytal sama bopp ma mais gëw loolu laa gëm quoi xaalis bi may doy sëkk pour man man maa ko war a faayit ko waaw pour ma am ko loolu waaw. ndax euh, mhm. làmb. yi euh, waaw damay bëri en même temps mais depuis daaw ba ren bëreewu ma quoi xam nga rek. maa ngi écrit yof mais xam nga yàlla ak dogalam jaam ak pexeem. waaw parce que man en même temps lii laa xam bu ma wàccee damay dem entraînement. fi ma fekk ni ma wàccee nii damay dem sport quoi. waaw. ana ngeen mais loolu du dara parce que tàmm nañ ko quoi habitude la ci ñun du ñu déranger ci dara franchement du ñu déranger quoi du ñu déranger bu jógee fii dañuy dem sport sans problème parce que bu jógee entraînement dañuy lekk ci métier bi lañ koy jëlee bu jógee sport xam làmb dama ko bëgg en même temps quoi bëgg-bëgg la waaw loolu ko waral man def naa deux sorties quoi laa def waaw benn bi dama ñàkk quoi benn bi match nul waaw ak ma en même temps nag moom damay nekk ci àll bi di bëre. ay tournois moom fu laay dem waaw dama jël ay trophée ba doyal moom franchement. waaw ñaar laa ci amagul. nga xam ne yàlla mooy dogale noonu quoi nit boo sañoon da dugg rek lépp sotti mais des fois suñu borom mooy doxale noonu quoi say mbir ku nekk ak fi yàlla jaarale say mbir waaw ñu sante ko yàlla bu baax nag. xam loolu moo gën ci ñun quoi ñun parce que dañuy ñaan à chaque fois rek yàlla na suñu boroom di def li nga xamante nii moo gën ci yow ci ñun quoi waaw loolu la ñuy ñaan ñun suñu àdduna noonu lañ koy dundee waaw. nga xam nga en même temps yombul quoi waaw sa doomu aadama des fois dund loo xam yow yaa yàlla suñ borom rek yéen a koy xam. da sant yàlla quoi nit da am ngëm-ngëm ngëm yàlla di sant suñu borom boo ko defee rek yàlla daf lay suturaal ci lu bëree bëri waaw daf lay suturaal waaw sama kaaj gu mujj mooy yow di la di rafetlu sa émission bi rek yaa sa waa ji toog sa caméraman bi di ko rafetlu xam ne lii yombul quoi parce que franchement bi nga ko liyee rek da jóg ñëw def ko loolu yombul. waaw la ñaanal rek sa site bi yàlla def mu dem ba doon ay télé télé waaw suñu borom jàppale la daal waaw te xam ne yàlla moom ku mu teg loxo rek suñu da ngay am sutura ak mujj gu rafet waaw di ñaan yàlla Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg rek waaw yàlla defal ñëpp jàmm xam nga waaw di siyaar ñëpp daal bàyyiwuma kenn. waaw ah, jërëjëf